rek noo ceeb noo petit pois noo dugub uniquement kon ak café Touba moralement mentalement dignement ci fula ak fayda café la ñuy naan di génn des médias kees média kees précis incha allahu Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba Diaw nag Cheikh Ibrahima Fall ginnaaw bi ma sant yàlla julli si yoon di sant sama ñaay waajur maa ngi sant ëxlu Baye Fall yëpp di ziar képp koo xamante ne ak jullit ngeen maa ngi lay ziar bu wér ak suñu mbokk chrétien maa ngi leen waaw di nuyoo jiital nuyoo bi suñu xalifa lépp Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ñu ngi koy ñaanal suñu borom bàyyi ko fi saxal ko fi dàkk ak njabootu Serigne Touba gi fi des yëpp di ñaanal Serigne Cheikh Jëmu Fall xalifa dee Baye Fall mu yàgg loolu te wér ak njabootu Cheikh Ibrahima Fall gi des yëpp. waaw damay sant yàlla rek sekk alhamdulilahi rabil alamin damay sant yàlla bu baax di julli Yonent bi sant sama ñaari waajur damay kontaan bu baax man daa am lu ma déglu mu wax ko ci prestige man am di nogay barki Serigne Touba man ku ma bañ sax waxal ma ni man dama am jom barki Serigne Bamba. xalaatu ma dajale ay nit ñu dagg seen idée yëpp ma yóbbu leen ba ay sàdd sama moroom góor jàkkaarloog ma di ma dóor may arrière xalaatu ma ko ci àdduna dee moom ma ko gënal kaw sara laa dëkk ruqu baay faal fii ragal ak Serigne Bamba sëkk man du ragal barke Ahmadou Bamba man du am xaax kenn du ma xuux may départ xalaatu ko ci àdduna dama ni ragal lu téye rajo di wax ragal lu jël douze mille francs déposé licence di bëri dóor man du ma bu fekkee day jënd fit na ma ko wax man du ko amee ci man man sans combat nan may dóor may dem ardo di ñëwaat barke Serigne Bamba yëpp ma samay supporter bay asaaloo sama combat man deretu góor laa yor góor mooy daw sama yaram barke Ahmadou Bamba sama yaay jàmbaari daaru bayra la day daw te du arrière déggoo ma de barke Ahmadou Bamba sama papa lu mu màgget màgget bara da koy téye di bu di ay ëkk billaay walaay taalaay salaatul fatiha bu yéexee sax laa la wax moom su yéexee arbitre wàcce na loxom moom nee naa arbitre wàcce arbitre bu wàcce loxom day ñëw attaqué ma loolu da wax mais du ko def loolu da wax du ko def imaginer si jaasipal ba léegi arbitre mu ne prix bu wàcce loxom maay daw fekk ji te ci bii lay raw sekk tungul du tee ñuy nataal man xale laa bu tuuti di doo ko dugg ci buntu àddina sekk daam lu ma waxoon lu am solo yi bàyyi woon ci xel damay la man damaa xam li may daan te damaa xam li may may ndam te li may may ndam jamono ji dama cee ne barki Serigne Bamba li topp sama ginnaaw yëpp ma leen yëpp goo xamante ni sama mënoon ko damay gëdd may daw seet du ma ko def dama jëla je attaque je koy xool Bamba aduñ bi moom prix bi ak loo xam ne dox ko xam nga xam nga tey jii nii man su ma téye rajo di wax du ne am na koy daa téerose rek di wax man damay wax di jëf man bërëm jëf ju ànd ak noppi laa man damay jëf mais du ma wax wax ju bari barki Serigne Touba damay wax tuuti jëf lu bari billaay walaay taalaay Seck man ba ma juddoo sama ndey ak sama baay laa dëggal sama bopp barke Ahmadou Bamba man nit musuma yóbbaale nit musuma yóbbaale te nit du ma musa yóbbaale ci àddina barke Ahmadou Bamba man deretu góor laa yor sama baay jàmbaar la sama ndey jàmbaar la foo neex daagu barke yonent bi moom daa am lu daa loolu la cay wax mu am solo trop moom nee na bi may baax nee na man bi may baax damaa jàpp sa terrain marché nga la guddi ma jëkk a dóor ci suuf mun ma loolu bu amul yàlla na la yàlla may ndam ma ne ko kon yàlla dina ma may ndam ndax loolu su ma jumul wëcc kayit moo ko tegoon teg teg lal ak nag dama kaa rof ci xabal xattar bi ko mu dóor pooj ba pare jàllo la jàllale ma at bi jox ko victoire c'est ay détails la nee naa ko ba may baax ba may bon ne nga tey damaa bon alhamdulilah rabil alamin ndax ku jugee ci grand combat ak Fallou Kalando Seck limal li ma la wax jëlal Fallou Kalando nga jël doomu déen nga jël jaasi pël ñett ñooñu kan la ci pam ndaw bëreel ku ëpp kooku ñooñu doole waaw jël dem baaxul ba tey moom daal baax na ba tey sant yàlla mais en ko cas li topp sama ginnaaw jamono ji barki Serigne Touba yóbbu ma leen waaw xam nga tey jii nii lii dafa neex de lii dafa neex ku ndëpp micro tiimale la euh, presse bi say mbokk yëpp toog ngay wax dafa neex sekk li gën a neex ci àdduna mooy arbitre ni ñu tëj barrière yi arbitre des fi ak yow ak moom ngeen jàkkaarloo ci digg géew bi xoolal du gis am dina koy sax barke Serigne Touba du ma gis. le 22 lay leer loolu. quand sorti la digg géew. Ah. nga tëj la barrière là moi et seul. je te le ferai ba tey bëgg a dee. ak Serigne Bamba. ñooñu la sekk weeru koor dafa jot amul ma jox supporters yi ndéwénal moo ma jël boobi pour jox sama supporters yi mais ngi ngi ay magam la ngi ay magam la dama ya. ni VIP yi nekk VIP yi nekk Thiès du ma duma du dur mais moom amna ñuko supérieur ci lamb ñi ngi ci biir Thiès dëkk nañ ci bari nañ fi. non man tuduma tur kenn sekk. non booy ñaxaw nga laaj su dee man tuduma tur kenn. sample yaangi ngi fi avance yaa am li doxee nak mom len la ku yabu ku yabu so bëggee dem nga jël ko ci jamono ji ndax xamna ni jamono ci kanam day gëna miti ndax li top sama ginaaw bari na tay bëgg nañ ma te luma soxla ñu defal ma mafia bu deur la yor. ku ci mel ni sama mag gisee jaañ waaw ci wàllu mobilisation bi xam nga tey jii nii am na yoon yoo xamante ni ñun dépassé nañ ko parce que tey jii am na dynamique bu nekkoon boo xam ne métti na trop ci man ndax la mais tey jii bu yàlla defee li nga xamante ni moo gën ci man xam nga wax gars yëpp ñëwaat sama mag Talla sama papa sax laa ko wax Talla Mbaye sama papa xam nga sama lépp bëggal ma boppam jàppale ma te yàlla rek tax ñu ànd depuis gone ba léegi xam nga mu yaatal affaire bi yëpp xam nga ku xam nga di sama mag di sama lépp nga xam ne moom kenn la ci man ak ku ci mel Samba xam sama doomu yaay xam nga ku ci mel ni ma dikkee kooku du ma ko bàyyi Bamba xam Kara kau du ma ko wax kooku du ma ko sax ci sama doomu yaay la sama xarit la xam nga Habib du ma ko fàtte ben yoon xam nga di sant sama grand boo xam ñoo bokk koñ bi mu di ma jàppale ci côté bu ne ci biir ak ci biti sama mag Cheikh Mbaye xam nga Bamba xam nga ku ci euro Yoro fayam xam euh, ale aw fayam xam nga ak koo xamante ni kenn la ci man kooku depuis gone ba léegi moo ma yar xam nga mu jàngal ma bëre muy sama lépp muy saafi jeen xam nga kon kooku tey jii ni ñooñu bu ñu toppoo sama ginnaaw am na loo xam ne lu bëri loo xam ne dafay motiver xam nga di sant kenn koo xamante ni war na Serigne Touba Mbacke du ma ko taay di ko sant ci média yi bi combat la Ndéla Gueye borom ngent marieur barki Serigne Bamba maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax ndax gis naa ni mu jàppee ci affaire yi xam nga di sant kenn koo xam ne kenn la sama papa Abdoulaye Madigo xam nga ni ko wax comme dab sama ndijaay Tamsir xam nga ma ngoy sante moy bu baax ak sama xarit sama lepp sama doom yaay xam nga da ngeen borom keman ma ngoy ziar bu baax baax xam nga di wo wa Touba ku ci melni Baye ganna o mo fayam xam nga wa Nasru xam nga di wo seigne fallo mu seigne Abdou Karim mbake borom makani ala du ko baye ben yoon moom xam nga di wo nak kilifa diine nga xam ne ku ci melni Serigne Moussa Fall borom Kawsara du ko faté seigne fallo Fall du ko faté ben yoon sama yaay asou Fall xam nga maa ngi woo sëñ Baskan maa ngi koy woo njabootu Serigne Moussa Fall gi fi nekk yëpp njabootu Cheikh Ibrahima maa ngi leen woo